cinq mille francs trois personnes ma tëj li may laaj benn ñaar benn des benn des waaw wasalaam salaamaaleykum wa rahmatullah nak yónni nañ ma Saalum ay barahamaay hajjan ko naan Seydi kañ ngay ñëw kon ma xam ko ni ko di dang ma fekk saalu baay baraamaay seydee ko naan naawu aalamu yàlla njëram dem la fu ko neex rek day cungoon doom baay baraamaay boobu la ma ngel xasaayu tàddi gàddu mbaal bu juf ne tàggu jolof jëm ci saalu baay baraamaay keroog ba mu wàccee biir Saalum lañ ko sañ am naa kon fa moo sañ ci Maalik génn jënaa bala kabol ko um soobu biir siri bari am naay bam fa moo wàcc kër Samba toog di foog la Seydou mën a ñaati ker samba nan ko aji abdu seydi wayna wayal bamba bayi bara amma kera ko mu wacce bir bambu dati satal noni ramu jere ñamu tuubal seydi bara amma lange tombi mbalki jambu na ñesan bakku leen lange tombi mbalki jambu na ñesan bakku leen mama jinges bara fi mbal seydi bara amma la tumbi bal gi jàpp na gisal bakku leen ma ajines bana fii bar sidi barahamaay naare kanaar ma doon tay maqaama inu maayaaba te ko tiitu kaamil sidi barahamaay mu jub na dañ ko dom domal daana ko jot benn ma naan ko uhuj jëndal kër gi yow mi bañ seex sidi barahamaay laana laahu ibnu mayaaba mi ngi noonu seet yal na lab ci géej gi waynu sëriñ barahama ibu juf na ñàkki tekkin tekki ajana na ta alku man ta bay seex kaw na koy dal sëriñ barahama doomam aram bu ko lëg la jaay booba yàlla coy la li ñu jagleel dawul lu jëf sëriñ barahama ibu juf na ko képp ku la jañ moom la bu ñu dajee di ko jàddal suñu barahamaay ku bañ Baay Ñas duñ la nuyu duñ la jox loxo yoma yoma suuna yàlla buñ fa dajee kuy bañ suñu barahama buñ fa dajee bon matam bonko bam taanu jànka Ibrahima Diouf sim na kuy bañ ah, bàyyi barahama macha Allah